بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon lii mooy ñaareelu xaaj ci waxtaan wi ñu doon def ci suba muy tombab qar'un ay aw kayfa taqra'u abwaab as-samaa naka ngay def ba mën a fëgg bunti asamaan yi ba boo ñaanee sunu borom subhaanahu wa ta'ala mu may la gis ngeen tomb yiñ ci leeral léegi ci suba ak sabab gi mu nekk ak waaj ngir nit ki yemb pour mën a ñaan boroomam mu may ko tuddoon naa ay sabab yoo xam ni benn bu ca nekk sabab la pour diggante nit ki ak boroomam mu ratax ba bu ñaanee sunu boroom sunu boroom may ko gis nga yooyu ñu doon wax ci suba nag bu ci nit ki góor góorloo lu mu man na yëg ni maanaam am na chance pour bokk ci groupe yii ñuy bëgg a wax nga xam ni ñoom bu ñu ñaanee sunu borom sunu borom nangul leen ñaareelu xaaj bi lii ma ci nar a nettali ñim gaar ay nit lañu woon rek comme yow ñenn ñi ay yonent lañ waaye ña ca des duñu ay yonent ay nit simple lañ comme yow la leen sunu borom mayoon it yëgal ni sunu borom moom mi ngi koy maye ba tey ndax mbaaxi sunu borom yi jagleelu ko aw askan wala aw xeet bàyyi ña ca des waaye mboolem ku ñëw ci kaw suuf jaar fa ñooña jaaroon mérito naa am ci ngëneel la nga xamante ni ñoom amoon nañ ko ci ay ngëneel. su ma doon tudd kon ay misaal ci nangu ñaan tàmbalee ci yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam. foog naa ni ñu bari ci ñun dégg nañ yonent yàlla ibrahim ak buur bu saay-saay bi mu dajaloon nga xam ni def na ay pexe pour faagaagal ko bokk na ci pexe yooyu mooy gas na am ngaari xonkalum pax ñu def ci ay mat maanaam mi ngi mel ni pax moo xam ni nee nañ ay camion yi camion ñoo cay sotti mat te du matt yi sa waaye matt yu dijj la loo xam ni picc sax bu naawoon mu tiim ko tàngoor wi jóge ci suuf da koy lakk ba daaneel ko loola xam ngeen ni nit xëju ca ñu jàpp Ibrahima def ko cig mbaq ndax boobu moo doon woote pas-pas yàlla rek la yaakaaroon moom la gëm ñu jàppoo Ibrahim daal di koy sànni ca pax moomee mbaq ko sànni ko ca foofa moom waxuma la lakk ba jeex waaye damay wax ne lakk ba seey moo waroon am foofu borom xam-xam yi dañuy wax ni bi loolu amee am na ci ndundat yi rab yeeg ñoo xam ne dañ doon toroxlul seen borom di ko ñaan ngir mu musal Ibrahim miñ tàbbal ci sawara soosu waaye Ibrahima biñ ko tàbbalee foofa wala ban koy tàbbal mi ngi tàllal ay loxoom sunu borom mu ñaan yàlla sawara day am mbindeef la ci sa mbindeef yi du sawaraay lakke waaye borom sawara mooy lakke gëm naa ni nag borom sawara su dogaleen danaa lakk tey ma lakk waaye borom sawara bu ko dugalu tit même bu ma tàbbee ci biir du ma lakk man nag awma fi ne wéeruwaay bu may wéeru ci moom ku dut yow bàyyi naa lak saa bopp sunu borom ni qul naa ya naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim sunu borom nee na ma wax sawara sa ni ko hey sawara li tax ngay lakke bàyyi woo ko ci yow waaye fi man la bàyyi ko léegi nag dama bëgg nga nekk lu sedd seddaay bu dul rey waaye bu ànd ak jàmm ci Ibrahim Ibrahima dugg ci biir sawara si bañ sawara si géem ñu génne ko mu mel ni ku nekkoon ci biir néegam nelaw ba yeewu dara xoosu ko dara jotu ko loolu du ay nettali du ay lépp waaye lu am la defe naa alxuraan nettali ko rek doy na doy na ci am la bàyyil kooku nga jël yonent yàlla yaquba alayhi salaam xoolal yaqub doom ji mu gënoon a bëgg mu yusuf alayhi salaam sunu borom natt ko ay rakkam ak ay magam jël ko yóbbu ko ca àll ba ni dee na till ga lekk na ko yaqub moom xam ne ni ñi waxul dëgg waaye nag xamul ana yuusuf ca jooyam yu metti ya ca toroxlul sunu borom ga di ñaan yàlla di ñaan sunu borom ba ab jëmmi jamono sunu borom daldi malakul mawti sàkku ci moom ndigal ni ko dama bëgg ziyaara ji yonent yàlla yaquba alayhi salaam bi mu ñëwee seet si ko mu laaj ko mu ne ko man maay malakul mawti mu ne ko benn laaj rek laa la bëgg laaj mooy ndax yuusuf dee na wala deewut mu ne ko ah yuusuf de xam naa ni moom deewut moom ndax man maay faataate te faata ku ma bakkanam loolu bokk na ci li gënoon a may yaqub mu am confiance ci ni yuusuf deewut malaakam dee ni ko waaw soo dee ñaan ñaan gi muy yaada almaaruf alladi la yanqatiu abadan wala yuxsihi gayruk yow sunu borom yow mi nga xam yaay borom njekk te say njekk moom du mas a dakk tey njekk yi ngay defal nit ñi kenn musu koo xam nu mu toll maa ngi lay ñaan nga delloo silma sama doom ji bi mu ko ko waxee mu daal di koy ñaan ci guddi gi ah ba fajar gay jot rek ci la waa ji ñëw ak aw xelam daal di koy indil mbubbum Yuusuf moom a nga xam ni ba mu ko tegee ca bët yi ca la gis ba daal tàmbalee am loolu imaam Ahmad mi ngi koy nettali ci az-Zuhd kon nit ki bu fekkee dafa ñaan boromam subhaanahu wa taala na gëm ni la yàlla doon may yonent yooyu ba léegi mi ngi koy maye xoolal yonent yàlla Ayyuba alayhi salaam nga xam ni fukki at ak juróom-ñett feebar na ko feebar bu metti nag lool feebar boo xam ne dëgg la ni ko nit ñi waxee naan dafa dem ba ay sax di dox ci yaram wi loolu amut loolu yonent yàlla du ko nattoo nattu bu mel noonu waaye ala kulli xaal feebar bi metti na am na fukki at ak juróom-ñett soxna yi am na ñoo xam ne ñaan nañ seen baat dem seen yoon doom yi ñii dee nañ jur gi nag yi ci kër gi ñee dee nañ xarit yi doon dajaloo ci biir këram këram dafa xumboon lool ndax ku bari woon alal la woon alal ji neex na saay nit ñi dem nañ seen yoon ba sax nag yemuñ ca waaye ñi ngi koy jëw ba ñenn ñi naan Ayyuba de yaakaar naa ne daa def bàkkaar boo xam ne yàlla du ko baal bi loolu amee ñaari nit ñu daal di ànd kenn ki daal ni morom mi Ayyuba de damaa yaakaar ne dafa def bàkkaar boo xam ne sunu borom du ko ko baal ki ci des daal di koy dem wax ko Ayyuba Ayyuba metti lu ca loola lool mu ne ah man de li ma mën a seede mooy amul benn yoon boo xam ni daanaa ko àtte wala ma fekk ay nit ñuy waxante ay baat ba tudd yàlla lu dul damay tourné ndax maa ngi bañ ñu tudd yàlla ci loo xam ne du nekk du nekk dëgg noonu ayuba nekk ci feebar bi mu daal di tàllal ay loxoom mu ñaan suñu borom gis ngeen alxuraan anni massaniya durr wa anta arhamur rahimin loolu nit ku ko bëgg ñaan mën na koo ñaan ci sunna te nit ki mën naa feebar feebar bi metti ci moom mu jóg julli guddi ñaan yàlla rabbi anni massaniya durr wa anta arhamur rahimin fu ne nii feebar bi metti na te yow yaay kii yërëmaati bi ko ayuba ñaanee fekk soxna si moom am na soxna su am ngor su des ak moom xam nga jigéen ñi am na ñoo xam ne boo amee jafe-jafe rek ñu dem seen kër baay wala ñu seeti keneen ndax xamuñu jafe-jafe waaye am na ñu am ngor ñoo xam ne lu mu metti metti ñoom ñu ngi toog soxna si am ngor lool toog daal di génn di ko wutal lu mu lekk mu yàgg fa ah ayuba jàpp ni soxna si kon moom it daa dem mu daal di giñ ci yàlla ni su soxna si dikkee dina ko caw téeméeri yar téeméeri yar yooyu moom la ko sun borom wax ne ah ndaw si kat demut woon ci daal di jël ay bale bant bale dajale ay bant ba muy téeméer mu dóorandoo ko benn yoon dafa giñoon comme daa giñoon te dafa war a def ngiñ la ba mu ko dóorandoo benn yoon jeex na sunu borom moo ko digalee noonu sunu borom daa ne ko urkudu bi rijlik këddal sa tànk bi ci suuf si mu këdd tànk bi ci suuf si rek ndox mi daal di ball hada mughtasalun barid mu daal di sangu wa sharab mu daal di cay naan bi mu naanee li nekkoon ci yaram bi yëpp daal di wér li nekkoon ci num turati biti gi ci dar bi daal di wér soxna si bi mu dellu see comme moom moo doon jël ayuba di ko yóbbu ca wanawa di ko jël di ko fu nekk di ko defal lépp mu dellu si fam bàyyi woon ayuba mu fekk fa benn waay bu rafet bu taxaw mu siggi xool ko mu nuroog ayuba mu ne waaw kii daf mel ni ayuba la xel mi ni ko déedéet daa nuroog moom waaye du moom ndax kii daa wér te ayuba daa feebar mu dikk ba ci waa ji mu ne ko ah yow mii de gisuma ku gën a nuroog yow ayuba xam naa ni doo ko ndax li ma jaaxal mooy ayuba daa feebar mu ni ko oxam kay man la man la ayuba sunu borom moo ma defal nangam ak nangam nettal ko histoire bi fekk mi ngi amoon ñaari àndaar àndaar mooy lu mel ni këll wala leget yoo xam ne da ci doon def dugub ci njëlal kër gi benn àndaar bi sunu borom defal ko ko or ba mu fees dell beneen àndaar bi sunu borom defal ko ko xaalis ba mu fees dell kon ñaanam nangu na alal ja dellu si na wér na waaye léegi nag alal ja dellu si na faf ndax may nañ ko ñaari àndaar xam ngeen ni ak leget buñ ko jëlee duy ko or ba mu fees moom jàpp na ni mën ngaa bañ a xëy liggéeyeeti bàkkaar lu mu bari bari bari ba mbugal nar a wàcc ci sa kaw boo tuubee sunu borom baal la borom xam-xam yi dañuy wax ni am na aw xeet ci xeet yu njëkk ya ñoo xam ni sunu borom dafa wax yu ab yonent seen yonent ni leen nañ préparé mbugal maa ngi ñëw ci seen kaw ndax dañoo saay-saay yonent bi daal di ñëw wax leen ko nit ñi daal di jaaxle na xam nañu yonent bi lu mu wax dëgg la léegi nan la ñuy def ñu ne nañ tànn ñett ñi gën a baax ci dëkk bi digal leen ñoom nañ ñu tuubal suñu borom suñu borom baal na ñett ña bi ñu génnee kenn ki daal ni yow sunu borom yow de yaa ñu digal ci tawraat ji nga wàcce ci Muusa ni ñu képp ku ñëw di la laaj ngir yàlla te nga am loo ko mën a may ngir yàlla may ko bu ko delloo ñu ngi ko doon jéem a jëfe luñ man tey nag yaa ci des yow sunu borom ñun ñoo ñëw pour di la laaj si ngir nga xitili ñu ci mbugal mii nga xam ni mooy bëgg a yegg si keneen ki ne yow sunu borom yow de yaa ñu digal ci tawraat ji nga wàcce ci Muusa ni ñu ku ñu tooñ nan ko baal même nit ñi buñ ko defut ñun ñii moom ñu ngi ko doon jéem a jëfe tey nag ñoo la tooñ yow mi ñu ko digal ñu ngi ñëw di la baalu keneen ki ni yow sunu borom yaanu digal ci tawraat bi nga wàcc ci Muusa ni nañ goreel suñuy jaam libéré leen bañ leen a mbugal ñun de ñu ngi ko doon jéem a jëfe tey nag dañoo ñëw bëgg nga goreel ñu libéré ñu sunu borom daal di wax yu yonent boobu ni ko waxal gaa yi ni leen jéggal naa leen seen bàkkaar nan dem xisa xisa boobu yu ni mel am na xam ngeen ni falawla kaanat qaryatun amanat fa nafaaha imaanu ci alquran mooy nit yunus ya gis ngeen leen ba mbugal ma naree wàcc ba ñu dikkee nan defoon dañoo jël ni xar mu doon nàmp nañ ko soreeg yaayam nag wu doon nàmp na soreeg yaayam xale bu doon nàmp na soreeg yaayam nit ñi buñ génne bu kenn sol lu rafet nañ tuubal suñu borom jéggalu ban ko defee suñu borom daal di yëkkati mbugal ma danul ci seen kaw am na benn yonent yàlla bu ñuy wax daaniya dafa daje woon ak benn buur bu saay saay bu ñuy wax buxtu nasar mooy buurab baabil dafa jëloon yonent bi tàbbal ko ci teen buxtu nasar moom li mu def ci caay caay moom ci àddina moom daanaka kenn xamu nu mu toll ndax buur bu saay saayoon la bi mu jëlee yonent bi tàbbal ko ca teen ba am na ñu wax ni sax dafa jël gaynde tàbbal ko ca biir ku mel ni Ibn Kathir mi ngi nettilul ci al-Bidaaya wa Nihaaya bi loolu amee sunu borom daal di wax beneen yonent bu ñuy tuddee Armiya ni ko dajaleel aw ñam nga defar lekk yóbbul ko yonent boobu mu ne ko ah kooka ma nga saam ah man maa ngi saam yonent boobu ma nga baabil diggante bu soree noonu nan laa koy yóbboo mu ne ko defaral lekk gi rek dinaa la jàpp ndalal lu ko yóbbu sunu borom daal di koy booleeg malaaka mu daal di koy yóbbu ak lekk gi yépp fekk yonent boobu nekk ci biir teen bi dafa tàllaloon loxo sunu borom mu ne yow sunu borom ah yow de yow yaay koo xam ne doo fàtte kenn te yaa yore wërsëg yi fi ne nag awma lu ma lekk gisuma mbokk xittali ma bi mu ñëwee ba tiim teen bi daal di tàbbal lekk gi bi mu tàbbalee lekk gi yonent bi ne waaw kooku kan la mu ne ko man la armiya mu daal di sant yàlla daal ne ah maa ngi sant sunu borom mi nga xam ne ndekete kat moom du fàtte kenn ci ay jaamam maa ngi sant sunu borom mi nga xam ndekete ku ko yaakaar du tas yaakaaram maa ngi sant sunu borom mi nga xam ne ku wéeru ci moom xittali la maa ngi sant sunu borom mi nga xam ne loo def lu rafet rek bu lay fay lu gën a rafet la lay defal wax a wax a wax ay baat yu bare bari borom bi subhanahu wa taala daal di koy xicili foofu bu mu génn ko teen ba yéen a ngi fàttali ko juray ji te lu xadis la mi ngi ci Buxaari rek muslim yonente bi moo ko nettali sallallahu alayhi wa sallam wala mi ngi sahih Buxaari juray ji benn jaamukatu yàlla la woon bu mag mu dem ca àll ba defar fa benn jaamukaay yàlla comme genre jàkk benn bis yaayam daal di ñëw fekk ko muy julli mu woo ko xelam daal ni waaw ma wuy sama yaay yàq sama julli gi wala ma bañ koo wuy ba jullee pare continuer sama julli gi mu yàq naa continuer sama julli gi ca suba sa ca ëllëg sa yaay ja ñëwaat fekk ko muy julli mu woo ko fekk da koo soxla mu waxaat la mu waxoon wax ci xelam te ma àggale julli wala mu wuy sama mu ne naa àggale julli gi rek ca jatteelu yoon ba nag yaay ji daa di mer bi mu meree mu ni ko da ngay sell sellulu bala ngaa dee yal na la yàlla toroxal ci kanamu caga ji ah ñaan nga daal di mel ni lu nangu nag dëgg la mi ngi doon jaamu yàlla waaye yaay tamit daa foor waa dëkk bi commencé ku nekk naan jure ji jaamukatu yàlla bi kooku ponkal la kooku kenn mënu koo nangam benn xale bu jigéen bu rafet bu nekk ci dëkk bi mu daal ni bu ngeen bëggee de man mii mën naa koo fitnaal ñu ni ko ay ca xale bu jigéen bi saay saay bi daal di dem ca àll ba bàyyee bopp ak sàmm ya ba jëlee fa ëmb ba mu amee doom mu ni juree ji moo jur doom ji mu ni juree ji mii da doon jaamu yàlla waaye du dëgg ndax fa moom laa doon dem mi ngi nii moo jur sama doom ji nit ñi fàqee ci dëkk bi seeni kuur ak seeni jaaseeg seeni bant ak ñëw daaneel fi mu doon jaamoo yàlla moxoñaate ko tiim ko bëgg koo def lu bon mu laaj waa man lu ma def ñu ni ko ndaw si nee na yaa ko ëmbal mu ni na ndaw si ñëw xale bi ñëw ndaw si ñëw liir bi ñëw liir baa ngi tooy xepp ñu tëral ko mu ni mu daal di jóg julli ñaari raak daal di jël loxoom teg ko ci biiru liir bi ni ko wee liir yow laa bëgg nga wax nit ñi kan mooy sa baay liir bi daal ni man mii sama yaay daa demoon ca àll ba daje fa ak sàmm yi foofu la jëlee ëmb waaye yow juróoma loolu mi ngi ci Buxaari loolu mu amul ay nettali rek ay léeb la yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam xoolal xoolal loolu fi mu toll liir boobu bokk na ci liir yi wax kon ndekk nit ki toujours na am confiance ci suñu borom kii du yonent de kii ab làbbe la rek te xam ngeen ne làbbe ab jullit bu gëm yàlla góorgóorlu sax mën na koo bañ a gëm asxaabul xaar moom duma ci jaaraat ndax jaaroon naa ci léegi ci suba mooy ñett ñooñu nga xam ne ñoo duggoon ca xuntuma kon yooyu ay mbir la yoo xam ne boo ko seetloo ba ca biir daf lay delloowaat ci suñu borom xeet yooya moom boo ca dina lim da ngay lim lu bari waaye pour waxtu ñëwal ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaabir ibni abdullah nee na benn bis yonent bi daf noo yabaloon ñu xeexi abu ubaydata amir ibnul jarrah moo nekkoon ki ñu jiite nee na yonent bi jox ñu ay dàmbay tàndarma ñuy lekk ci tàndarma ji ba mu yàgg tàndarma ji jeex bi tàndarma ji waaj a jeex nag Abu Ubayda woo ñu ne ñu ah tàndarma jaa ngi waaj a jeex te tukki bi jeexagul nit ñuy def mooy kenn ku nekk bis bu ne benn tàndarma laa lay jox tàndarma benn tàndarma doy na. nee na dañoo dem ba benn tàndarma ngay jël saa saa da ngay romb xobi garab yoo jàpp ne mën nañ koo lekk rek nga witt ci xobi garab yi lekk. nee na bi ñuy def noonu dem ba mu yàgg lekk gi jeex takk ci àll bi ñu nar a faatu nee na ñuy dem ba ci pegg tefes gi. ñu seen benn affaire boo xam ne boo ko séenee montagne nga koy teg ndax rëyaay aw xeer ponkalum xeer nga koy teg ndax rëy nee na ñu yow ba yegg si fekk benn jën la bu ñuy tuddee anbar ci jëne géej gi la. jën la boo xam ne rëyaay ga moom daanaka moom kenn mun la ko wax ndax ki ko nettali nee na fukki nit ak ñaar Abu Ubayda dañ leen dugg leen ngeen taxaw ci paxu bët bi paxu bët bi. maanaam bët bi bët bi rek ni mu rëyee fukki nit ak ñaar mën nañ cee taxaw ak seen i tànk loolu xam ngeen daa rëy faar gi nii faar gi rek biñ ko taxawalee nii ki gën a njool ci mbooloo mi faar gee la sut loolu lu rëy la bi loolu amee ñu ne daneen ci lekk ak duñ ci lekk Abu Ubayda mu ni lekk leen ba suur ay ndaw ngeen yonent bi yabal lii dal wërsëgu suñu borom la mu ni peru bët bi genre geres ma nga fa boo xam ne lañ ca doon génne chaque jour moom lañ doon diw ci suñ mburu yi di ko bëri mu ni biñ demee ca lañ lekk ca lañ lekk ba suur këll bi ñibbi jotee ñu ni nañ ci dagg ay morso yóbbaale biñ yegsee ñu nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni leen ah loolu kay matut laaj loolu wërsëg la wu leen yàlla wërsëgal kese bu bu fekkee des na sax yët leen ma ca man ma lekk ca man mu ni ñadaale ko cay daggal moom yonent bi yët ko ca loolu imam Bukhari yi nettali na ko Aïcha radiyallahu anha ne dafa amoon benn xale bu jigéen boo xam ne dafa ñuul boo xamee daraan ñëw léeg-léeg xam nga nit ku nekk am na léeg am koo xam sa xarit la doon nga dem di waxtaan ak moom ndaw si toq Aïcha nee na saa bu ñëwee dama koy dégg muy wax wa yawma alwishaah min taajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri an jaani ha cey sama bis ba cey sama bis ba keroog de gis naa kii maa ni si suñu borom keroog daal suñu borom noonu ca la jaare sax xitali ma ci lislaam nag faf Aïcha ni ko waaw yow saa boo ñëwee li ma dégg nga di ko wax lan la mu ne ko benn bis dama nekkoon ci sama waa kër njaatige ñu amuk céet am genre mooy wëñ yu ñuul yi liñ wëñ wëñ wëñ yi liñ koy lëmasee noonu xaw ma nu mu tudd bu xonq loo xam ne boo ko séenee am na benn picc muy naaw ci kaw mu ñuy wax njurkul picc bi day sàcc mën naa seen lu xonq mu këf ko ndax yàpp la koy teg picc mi daal di ñël rek daal di këf loola dem mu ne waa kër gi ne ma maa ko sàcc nee na ñu jàpp ma dóor ma kero dañ maa dóor ba futti ma moo def yaramu neen mu ne ma daa tàllal samay loxo ma ñaan sunu borom te nee na booba sax duggaguma ci lislaam waaye nag sama xel mi ngi nekk ci lislaam ma ñaan yàlla ni yàlla lii moom yow rek yaa ma ci mën a xëttali nee na ñu jekki-jekki rek seen picc mi naaw ba jub suñu rek daal di waddal affaire bi mu wadd bi affaire bi waddee mu daal di leen gis ngeen li ngeen ma doon tuumaay ni yéen a ngi ni yéen a gis ak seen bët mu ne gaa yi daal di rus a rus ñu ne fa laa jóge xam ne nag kii nangu sama ñaan gi kii kooku mooy yàlla ci laa ñëw ci yonente bi saa sallam tuub dugg ci lislaam loolu tamit mi ngi ci Buxaari yi Omar ibn al-Khattab ca jamonoom benn bis dafa tàllaloon ay loxoom mu ñaan suñu boroom fekk nit ñi dañoo bëggoon taw mu ñaan mu ni yow suñu boroom ñun de ñu ngi lay jéggalu tey sàkku ci yow taw rek taw bi daal di sóob taw bi sóob taw bi sóob ba sewet nawet bi jeex ñu toog ay fan ci dëkk bi ay nit daal di ñëw ay gan ñëw ci dëkk bi di laajte kan mooy Abu Hafs Abu Hafs mooy Omar ñu laaj leen waaw yéen lu ngeen koy doyee ñu ne ñun daal dañoo nekkoon ci àll bi ba mu yàgg ñu seen aw xiin ba mu yàgg ñu dégg benn waay wax ataaka al gawsu ya aba Hafs xitili gi yegg si na yow waajal waajal xitili gaa ngi yegg si mu ni ñun ñu ni waaw loolu kii wax kan la xamuñu kum doon li muy wax lan la xamuñu lu mu doon ba mu yàgg rek taw bi soob ataaka al gawsu mooy li nga doon ñaan nangu na ñu ngi lay xitili taw baa ngi yegg si ñu nettali ko Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda Omar ibn al-Khattab ca jamonoom bis taw manqué na mu woo Abbas ni ko comme yaay bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaay nga ñaan Abbas ñëw mu ne yow sunu boroom amul benn musiba buy wadd lu dul bàkkaar yee ko waral amul musiba juy teggeeku lu dul tuub gee ko waral nit ñaa ngi nag ñëw ci man tey dañoo rafet ci man njortu nee na ñee yaay may bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa ne nag du man maa am maqaamay mën a ñaan mu nangu waaye nag sunu jubbi kawar mi ngi nii ci say loxo ñoo ngi tuub yaa ñu moom lu lu lu fi nekk yawa fi nekk nii mag ñi rus nañ ñi ngi jéggalu jàmbat yi bari nañ yaa xam li nëbbu ak li feeñ xitilil sa jaam ñi ndax kat boo nu xitiliwut ba ñu naagu ñàkk sa yërmande kat dañuy xalku nee na wax ji balaa muy yegg sax ñu ngi dégg asamaan si di dënnu ci la taw bi daal di sóob wa kadalika thabit albunnaani moo nekkoon ndongal anas ibni malik ah moo nekkoon ndongal anas ibni malik thabit albunnaani jege na woon na ko lool nee na benn bis dañoo toog maag anas ba mu yàgg surga tool bi daal di ñëw daal ne ko ah anas jugal gaaw am na lu xew de mu ni ko lu xew mu ni ko damaa dem fekk tool ba ma nga laxa laxa lax amunu ndox mu ñu roosee taw bi gëj naa ñëw àll baa nga yàqu mu ni jox ma sa talagi ñu jox ko sa talagi mu daal di jàpp julli ñaar rakka tàllal ay loxoom ñaan suñu borom yàlla na yàlla tawal ko ci ay garabam bi mu ñaanee ba noppi rek taw bi sóob mu taw ba sëwét mu ni waa ji xoolal ma mu ni xoolal ma fu taw bi yam ndax moom xamoon na ni taw bi moom du woon taw neen yàlla moo ko tawal waa ji nee na damaa génn ci tool bi rek ndeke taw bi tool bi la doon tawal taw bi tool bi la doon tawal maanaam daal bu doon tool bi daa tolloo kër gi ñu ni taw bi daa ñëw rek tawal kër gi ba kër gi tooy taw bi dem yoonam xam ngeen Anas ibn Malik moom la yent bi ñaanaloon mu bari ay doom Anas li mu amoon ci doom ëpp na téeméeri doom toolam yàlla defal defal ko barke Anas danaan meññi toolam deux fois par at maanaam bu doon mango la dañ naan mango day meññi mu ànd ak nit ñi meññi bañ jaay ba ragal mango meññi waat ci diggante bi loolu nag barkeb ñaanub yonente bi la sallallahu alayhi wasallam ci sababu yaayam ci ko indi woon jox ko yonente bi mu ñaanal ko abi Sa'id al-Khudri ne dañoo xëy benn bis maak sama soxna kër gi dara amu fi te loolu day dar borom kër yi soxna si daal di koy woo ne ko waaw xeer yi ngay jël takk sa biir bi di sonal sa bopp te ngaa dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga ñaan wax ko mu jox la ndax diw jëkkëram ba mu demee ci yonent bi yonent bi jox na ko ca màngama abu saïd ni bismillah xaaral ma dem nee na ma daal di ñëw ba jub si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko muy waaraate mel ni daal affaire bi lu suñu borom programme ba pare la yonent bi ni képp koo xam ni daa fegu yàlla dana ko fegal képp koo xam ni daa muñ li ko dal yàlla dana ko xittali képp koo xamante ni daa ñàkk waaye gëm na ni yàlla mooy joxe mu bañ a tiis ñàkkam gi kenn bàyyi ko suñu borom suñu borom dana ko wërsëgal mu ni man rus na maa ñaan kii man la doon waxal su fekkee yonent bi sax waxul ak moom da doon waaraate rek li waroon naan tombee waral ay gaaf nee na ma daal di tourné ñibbisi bi mu ñibbisee këram daa toog ay fan rek xéewal dikkal leen goo xam ne nee na dem na ba dama naan waaw léegi est-ce que dëkk bi am na ku ma fi ëpp alal mais dama léegi loolu lay wax day calcul léegi ndax dëkk bi am na ku ko fi ëpp alal kon loolu da lay wan ni maanaam ñaan yàgg naa nangu ma nga fam ne woon ba léegi benn waay bu ñuy wax Sahl ibn Manjab ñii may lim sax la bokkuñ saxaaba yi fat ñi may bëgg a ñëw mais dañoo àndoon ak benn waay bu ñuy wax Ala ibn al-Xadrami dem ca barab bu ñuy wax Daarayin ca côté Bahrain nee na bi ñu àndee ci yoon bi ala ibn al-Xadrami kooku nag kéemaanu yàlla la ndax ñi jàng siira boo jàngee dundam da ngay gis ay kéemtaan yu bari ci wàllu nangu ñaan ak jaamu yàlla nee na ñaan na ñetti ñaan yoo xam ne benn bu ci nekk da koo ñaan ci saasa ma gis ko ci saasa nee na dañoo dem ba ci àll bi ñu bëgg a jàpp amuñu ndox mu tàllal ay loxoom mu ñaan sunu borom ya alimu ya xalim ya aliyu ya azim inna abiduk wa fi sabilik nuqatilu aduwak fa asqina gaythan nashrabu minhu wa natawaddau min al ahdath wa ida taraknaahu fala tajcal li ahadin fiina nasiban gayrana mu talalee loxoom yow suñu borom yow mi nga xam yaay ku xam ki ku lewet ki ku kawe ki ku màgg ki ñun ñii say jaam lañ dañoo nekk ci sa yoon di xeex ak say noon dañoo mar te dañoo bëgg a jàpp amuñu ndox mu ñu naan amuñu ndox mu ñu jàppee ñoo ngi aajoo nga xetti li ñu may ñu ndox léegi léegi léegi te buñ ci jëfandikoo ba noppi na ndox ma ni mes bu ko kenn laal nee nañ ñu avancé tuuti rek fekk benn genre dex dex goo xam ne dafa mel ni daal léegi lañ ko fi def nee na ñu wàcc fa ñu bëgg a sangu-sangu ñu bëgg a naan naan ñu def lañ bëgg a def lépp ba noppi ñu tànk ca ay gurtu waa ji nettali mbir mi nee na ma ni xaaral nit ñi ne acca nañ dem mu ni ma fàtte fàttelu fi sama satala bi sama mbuus satala seen mbuus yi mooy boo fullee daru bëy ñu naar yi def nga xam ne day nekk comme genre sa poche ñu di ci def ndox nee na ma fàtte fàttelu fa loola ngir bëgg a tourné waat ñu dem tuuti ma ni eh man fàtte naa sama mbuus ga de xaaral ma jëli ko fekk fàttewul da koo fàtte fàttelu nee na bi ma dellu see fa ma fàtte mbuus ga fekk naa fa mbuus ga waaye gisatuma def ga ma xam ni kon kii ñaanam gi nangu na nee na bi ñu yegsee ba daara yin waa ji mu daal di ñaanaat sunu borom subhaanahu wa taala geneen ñaan ñaan gi mooy dañoo yegsi ba ci ak dex mënuñoo jàll mu daal di ñaanaat ñaan gam ñaanoon tëdd aw fasam xam ngeen aw fas du mooy war a jaar ci dex mbaam géej naan day dem ndax batoo koy def wala gaal nee na bi mu këddee dem aywa gars yi ñëw leen ñu dem ah gars yi ñoom it comme xam nañ ni kii borom yàlla defal na koy may ñu daal topp ca gannaawam nee na dugg nañ ba génn waxuma la kenn labut waaye na noo xool sa faf tooy sax defuñu ko faf bi nu génnee nee na ñu demaat ab diir ci tuuti rek nag waa ji commencé di jàmbat biir bi biir bi mooy metti moom ala alxadrami nee na biir bi metti ñu toog ab diir rek mu leen di këndëng faatu nee na bi mu faatoo ñu xool ndox mañ oroon jeex na fay la jóge nañ fa amuñ luñ ko sangee ñu ne ah nañ ko tiimal kon suul ko ak yéreem noonu ñu daal di koy suul biñ ko suulee ba noppi ñu départ di ñibbi dox tuuti rek gis am ndox kenn ki daal ne ah comme biñ ko suulee yàggul nañ dem sulli ji ko ñu sang ko nee na bi ñu tourné pour war koo sulli xamul fu armeel ba nekkat te ñoo ko suul léegi benn waaye daal ni jarul ngeen di sonn nañ ñibbi déggoon naa ko muy ñaan naan sunu borom yàlla na nga suturaal sama awra ba kenn bu mu ko gis ba buñ ma suulee sax bu ma kenn xam fan laa nekk ñu fàtte ma ma des ak yow. mu ne déggoon naa ko muy ñaan ñaan boobu loolu imaamu Ibn Kathir nettali na ko ci Bidaaya wa Nihaaya Ibn al-Jawzi ci safatu safwa ak yeneen i borom yi xam-xam. benn waaye ñëw na benn bis ci ala alxadrami moom ci dëkkam ci waa Basra fekk benn xeer moo dugg ci nopp bi mënta génn mboolem fajkat yi jéem jéem mënta génn ba nopp bi commencé di xelli dëtt benn waaye daal di koy wax xasanul basri xasanul basri ni ko ah jàpp naa ne de bu ca ala alxadrami ñaanoon léegi tey mu wér waa ji daal dem ci ala alxadrami daal di koy sàkku ci moom mu ñaanal ko mu daal di ñaan sunu borom yaa aliyu yaa azim yaa xalimu yaa alim yow sunu borom yow mi nga xam yaay ku kawe ki te gën a kawe ñëpp màgg gën a màgg ñëpp lewet am xam-xam xam lépp nee na bi mu ko ñaanee daal di tafli ci nopp bi rek affaire bi dëtt ji di commencé di xel li di xel li ba génnewaale xeer wi nee na waa ji nee na fa la daal di jaaree daal di wér ak yeneen yoo xam ne ala alxadrami def na ko ci histoire yoo xamante ni yu baree bare la bale ci buntu nangu ñaan ndax sunu borom doon na ko nangul ñaan Anas ibn Malik nee na dafa am kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ni ab tukkikat la woon am na ñu wax Aba Mualla am na ñu wax Aba Mualla benn bis muy tukki fekk commerçant la mu dem ba ci digg àll bi ponkalum agresseur daal di koy koj ni mu ko kojee ne ko yee wàccal sa fas wi yow mu wàcc fas wi mu ne ko jox ma li nga am ci alal mu jox ko li mu yor ci alal lépp mu ne ko tëddal dama lay rey mu ne ko déet yow sama alal kay jëlal nga dem waaye man kay bàyyi ma ma bañ a dee mu ne ko déedéet alal ji moom maa ko moom leew na ma doom sa bakkan bi laa soxla woon mu ne ko waa may ma ma julli ñeenti raaka ba ba pare ma deewaale ko mu ne ko julli sax junni raaka man yàkkam ci ma mu daal di julli ñeenti raaka ca raaka ba mu mujjantalee nag mu daal di ñaan sunu borom mu ni yaa waduud yaa dal arshi almajid yaa faalu lima yurid asaluka biizzika alladi laa yuraam wa mulkika alladi laa yudaam wa binuurika alladi malaa arkaana arshik an takfini sharra hada allif yaa mugiitu aritni mu ne yow sunu boroom yow mi nga xam ne yaay ku am cofeel ci sa jaam ñi yow sunu boroom yaay borom aras ju tedd ji yow sunu boroom lu la soob rek mooy liy am maa ngi la ñaan ci sa tedd nga ji nga xam ni kenn du diiranteeg ma yow mag sa nguur gu yaatu gi nga xam ni bokkule woo ko kenn sa leer gu yaatu gi nga xam ni fees na aras ak la ko wër yow sunu boroom kii de fi mu ne nii yow rek rek rek yaa ma ci mën a xëcc maa ngi sàkku nga xëcc li ma wala loolu ba xam nee na bi mu ñaanee ñaan gi ñetti yoon daal di siggi ah bi mu siggee nee na maa ngi am yaakaar waaye nag dama ne xaaral rek ma siggi rek bu ko defee daal di taayee sëlmal xaar waa ji rey ma bi mu taayaa mu sëlmal siggi rek ne mi ngi gis benn ponkal moo xam ni dafa njool bi ma ko xool sax dama siggi mu war a aw fas ah ma geesu ci beneen côté bi seen waa ji moom rey nañ ko ba def ko ay morso mi ngi tëdd ci beneen côté bi ma ne ko waaw yow saa waay yow yaay kan mu ne ko man de benn malaaka laa ci malaaka yi asamaani ñeenteel gis nga sa ñaan gi bi nga ko waxee benn yoon dafa mel ni dañoo dégg ci asamaan si dill dill dill dill coow loo xam ni di nga tollantee beneen ñaan ñu déggaat coow li gën a foor bari lool nee na bi nga ñaa ñu ñetteel bi nag ñu ni waaw lu xew ñu ni ah kooku de ku amu tiis la koo xam ne mi ngi xëccaliku ci ki mat a xëccaliku muy suñ borom nee na ca laa ñaan sunu borom ni ko ah kon nag baaxee ma xéewal gii man ma dem yóbbu xitili gi ndax sunu borom mooy xitili waate nee na bi loolu amee sunu borom yabal ma ma ñëw fajaraate waa ji anas ni képp koo xam ni nekk na ci aw tiis wala jafe-jafe yu mel néeg yu ni mel nga ñaan ñaan bii lu dul sunu borom dana la xitili ca natt yooyu su fekkee nekkul sa greb loola imam ibn al athir génn na ko ci usudul gaaba ibni hajar al asqalaani génn na ko ci al isaaba imam ibn al qayyim tënk na ko ci al jawaabul kaafi nett li ko fa ah di wane ne kon yii nekkul ay léeb rek waaye lu am la bokk na ci yooyu nga xam ni ay misaal la yuñ mën a joxe day na bokk na ci misaal yi nga xamante ni dañ koy joxe ci wane ngëneel yi nga xamante ni pas-pas am na ko Amr abi Saraya mooy nettali ni benn bis dañoo nekkoon ci benn xare ci côté Rome mu ne man kese nee na ma tëdd ci ron garab gi di noppal ba mu yàgg rek ma naan awma lu dul jékki-jékki rek seen benn ponkal ci yéefar yi daal di ñëw ba tiim ma ni ma waa jugal nag léegi bu fekkee xeej nga bëgg ñu xeex bu fekkee jaasi nga bëgg ñu jàkkaarloo bu dee songoo nga bëgg nan songoo maa yow loo ci bëgg rek ngir ma ray la mu jeex nga xam nga yéeféer dañoo soxoroon ci jullit ñi nee na ma xool xam ni waa ji bu dee jaasi man na maa rey bu dee xeej man na maa jam ma ne ko nan songoo ñu xool ba xam nee na bi nu songoo waa ji daal di may daan ba toog ci sama dënn bi nee na bi mu toogee sama dënn bi nag ni ma léegi da ngay xool ban façon rey moo la neex ma rayee la ko xam nga loolu moom amut rey buy neex mu ne ko waxal da ngay bëgg ma téenal la rey la wala ma dëpp la rey la wala loo bëgg ma rayee la ko rek waxal waaw fa ma rey la nee na falaani ashhadu anna kulla maabudin ma duuna arshika ila qaraari ardika baatil gayra wajhika alkarim ya allah qad tara ma ana fihi fafarrij anni mu ne yow sunu borom maa ngi seede ni lépp lu ñuy jaamu ci ron arash te lu dut yow loola neen la gëwuma ko yaakaaruma ko yow rek yaa fi nekk gis nga nag fi mu nekk nii dee danga fi sës nag aw ma ku ma yaakaar ku dut yow mi ma doon wax nee na foofu mu mel ni damaa xëm ak xëm moo ma dikkal xamatuma lu xew mu ne ma ma ximmali ko rek moom waa ji moom xaw ma moom ku ko rey ak nu mu ko rey man xaw ma ko man daal seen nan ma nga ma nga jaaxaan fee sama pegg ma jóg dem sama yoon xaw ma ku ko rey xaw ma lu ko rey xaw ma nu mu dee ma jóg dem sama yoon bokk na ci yooyee nga xamante ni manees na ko nettali ba léegi ci ay mbir yoo xam ne ñu ngi doon am ci jamono salafu saalih abi sabra an naxaa yi mooy nettali nee na benn waay dafa ñëw ci ñun ci waa yaman yi nee na bi mu àndeek ñun mbooloo mi ñuy tukki ba mu yàgg am mbaamam daal di dee ci yoon bi bi mbaam mi dee mu daal di julli ñaar rakk mu ñaan sunu borom nee na bi mu ñaanee sunu borom daal di wax yow sunu borom ah man de maa ngi ni dama dikkoon ci dëkk bi ngir xeex si fii sabilillah laa doon liggéeyal nag te gëm naa ni ku dee yaa koy dekkal te man damaa sartante woon du ma ñaan kenn lenn soxlaaluma ki mooy li ma doon wax sànq suba nit ki nay fexe bañ a soxlaal nit ñi di soxlaal yàlla te yow yàlla ñi dugg biir bàmmeel sax man ngeen dekkal ñu génn waxuma la ak sama mbaam mi mbaam mi nag laa bëgg mu jóg sunu borom daal di ko koy dekkalal mbaam mi jóg di fëggatu di ngaax nee na mu daal di war dem lu ni mel rot na ci ñeneen ku mel ni Salata ibni Ashyam mosoon naa ko fi nettali benn bis àndoon naag gaa yi ba mu yàgg ah aw fasam dee mu ñaan sunu borom fas wa daal di jóg mu war ko bi mu yegsee ba ci kër gi mu ne xale yi tekki leen fas wi ngeen delloo ko borom gone yi di reetaan di wax na moo sunu baay lu muy wax nii kan mooy borom ku dul yow bi ñu tekkee fas wi rek fas wi daal daan waat dee ci la leen nettali histoire borom mooy kan mooy yàlla da koo dekkaloon pour mu war ko ñëw ci kër gi pare dee imaamu Shaabi nettali bii nga xam ni imaam alxaafis ibn abi dunya moo ngi koy nettali bu mel nii nga xam ni benn waay la bu waay dundal mbaamam imaamu Shaabi nee na mbaam mooma ñu dekkal man teg naa ci sama bët te imaam Shaabi borom xam-xam bu mag la woon nee na mbaam moomu nga xam ne dañ koo dekkal mu jóg di dox mu ni teg naa ci sama bët ñu koy ommat di ko jaay ci marché ba wala boo ki ko jënd di ko ommat ba nit ñi sax di xas ka ko doon jaay naa ko yow da ngaa dof mbaam mu mel nii waaw waaja kay wax dëgg yàlla warut a war a jaay mbaam mi moom it mbaam mu mel noonu nga xam daa deewoon ba suñu borom dekkal la comme jàpp naa ne ku ko amoon waroo koo jaay da nga ko war a garder mu ne ba nit ñi ñi ngi naa ko yow lii bu ko jaay xanaa da ngaa dof mbaam mu la suñu borom dekkalal noo koy jaayee ak yeneen yoo xamante ni nuru naag yu mel noonu Jaabir ibn Abdillah mas naa ànd ak benn waaye jëm ci Abdullah ibn Kurayz ibn Amir ndax dañoo déggoon ni gouverneur la ñu ne ah comme sunu xarit la woon nan dem xëy na comme dañoo am ay mbir yu ñu gaar ñu diis ko ko ci ay soxla biñ dikkee ba ci yoon wi kenn ki daal ni morom mi ah man de li fii ñu jëm gis naa lu ko gën lu ko gën waaw yàlla mi nga xam ni moom moo jër waa ji Amir ibn Kurayz may ko alal def ko waaw mënuñu koo ñaan ñuy tukki tukki bu sori nii nan dañuy dem ñu julli ñaar ak ku nekk ñaan sa borom daal tourné ñibbisi bi ñu ñibbisee kenn ku ci nekk daa toog këram ba mu yàgg rek kan doon seeti pour ñu ñaane ko moo yeble ci dëkk bi ñëw kenn ku ci nekk mu jox la ci alal loo xam ni kenn xamul nu mu toll bay la loolu mooy wërsëgu sunu borom moom foo ko foogeewul rek fa lay yegsee misaal yi su ma ko toppee xaajut jeexut jeexut fi mu nekk nii liñ tàmbali woon jeexut dinañ ko yeggale insha allah waaye li may wax rek pour tëjee ko mooy gis nga yii wallahi alazim mi ngi am ba tey ba tey laa wax ba tey ci suba ba tey ci ngoon ba fii ngeen toog yëf yaa ngi am am na yoo xam ne léeg-léeg buñ la ko nettalee mën naa am sax ñi la ko nettalee xëy na ña nga ca mbooloo ma wala soriwuñ wala yoo xam ne bees ko waxee ci wax kaset wala nangam manees naa xam yooyu dees koy nëbb ndax nit koy dundukat bees ko xamalee yenn yi nëbbal ko ko moo gën ndax waru daa gaaw su ko déggee moom mën na caa waru jàpp ni lii lu mu baax le la wa illaa nit ñi di ko ko xoolee ba teg ko fu mu yeggut wa illaa moom mam gaar xëy na bëggut nit ñi xam ni lii gaar na ko gis nga bëggul woon ak yooyu wallahi mën naa nettali yoo xam ni ah ñim gaar xam nañ leen yoo xam ni ci jamono bii ñuy dund gis nga biñ ma ci bi ma ci mujjee yëg bi ma ci mujjee yëg matul semaine bi ma ci mujjee yëg matul semaine koo xam ne nekk na ci ay xeeti tiis ak i jafe-jafe déglu leen li may wax baax li may nettali kim dal ki ko nettali bi mu ko mujjee dal ak léegi matul semaine laax matul semaine matagul juróom-ñaari fan xam nga loolu yàggul ko waa ji am jafe-jafe nekk ci ay tiis mu tàllal ay loxoom di ñaan suñu boroom yéen a ngi dégg li may wax baax li may nettali nii nii boobaak léegi matul juróom-ñaari fan mu tàllal ay loxoom di ñaan sunu borom ñaan ko ay soxlaam la bëgg lépp la ko daal ci ay tiis ndekete bi muy ñaan portable am da ko defoon silencieux portable baa ngi sonné te moom yëggu ko mu ñaan ba ay ñaanam jeex mu dem yoonam jékki-jékki gis ni kat ndeke am na ko ko doon woo mu daal di ah xaaral ma jël kon woowaa ji ki nekk l'histoire bi nee na mu woowaa ji jotu ko mu woowaat ko jotu ko ci ñetteelu yoon bi waa ji daal di koy woo jot ko mu xamal ko xéewal bu ko suñu borom defal boo xam ni daa méngoog lim doon ñaan kiif kiif lii ma ne ci li matul juróom-ñaari fan ku nu xam la am na koo xam ni ay bor la amoon mu ameel benn waay bor bor bi bari lool lii waa ji da ko koo may lii waa ji da ko koo lebal bor ba bari mu jaaxle xamul nu mu koy fayee sonn ci sonn ci mu tegale ay fan di ñaan suñu borom ñaan boobu nga xam ne yent bi moo waxoon mooy allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwaak am na ñaan boo xam ne yent bi moo fekkoon abu umama ci jàkka ji mu ne ko waaw yow looy def ci jàkka ji mu ne ko man dama am jafe-jafe ay bor daal fi ne moo mën a kët këlës sonal ma yent bi daal di koy dóoru loxoom daal ne ko waaw tee ngaa ñëw ma waxala loo xam ne soo ko defee suñu borom fayal la say bor muy allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwaak gis nga lii may nettali waa ji nee na mu topp ñaan bi di ko ñaan su fekkee juumoo ca nettali ba mu tàmbali bisab talaata di ko ñaan àllarba alxamis ajjuma samedi ba dimanche ca ngoon mu ne ah léegi li fi sës daal mooy naa seet ci samay matériel li ma ci am ma jaay ko delloo waa ji ndax fi mu nekk nii kat mbir yi jéggi na dayo mu ne kon xaaral ma woo waa ji wax ko loolu loolu laa nar bi mu wooyee waa ji waa ji ni ko ah loola loola kay dama la kaa mayoon dama doon bàyyi ba nga ñëw di ko fay si rek ma may la ko waa ji mel ni ku àddina ku asamaan si daanu ci kawam xoolal xoolal ni mu simple ngir nangu ñaan fekk ñaan bi mi ngi tàmbali talaata ba dimanche di ko ñaan su ma doon nitil danaa nitil yu bari waaye nag xëy na junj ko noonu sànni ngir ñam gaar xëy na bëgguñ nit ñi xam ko parce que am na ñoo xam ne ñii ay góor lañ ñii ay jigéen lañ ñoo xam ne amaan na xëy na bañ koy nettali am na lu ñu jublu ca nettali ga ngir xëy na nit ki xam ni mu nettali ko ngir sante ko suñu borom ñaareel mooy nettali ko koo wóolu ñetteel mooy nga nettali ko xëy na ku koo jàpp ni jàngalekat la. peut-être que misaal yi bu ko joxee dina encourager nit ki mu gëm ni ba léegi yàlla kon mi ngi nangu ñaan ba suba sax laa wax na ba déwén ba àllaaxira sax mi ngi nangu ñaan nam doon nangoo ñaan ba tey kon yooyu. li tax ma mujjee ko mooy ngir nit ki bañ a dégg li mu ne ah seytaan di kam ah ñii de bu leen jéem a roy ñii sa waaye boo leen royee doo jàll de ndax ñii ñooy ñii ñii ñii fekk mbir yaa ngi am ba tey jéggalul sa borom toloxlul sa borom talalal sa borom nga ñaan ko rawatina nag tomb yiñ jëloon tey ci suba muy fukk yeeg ñaar yi nga xam ne ay sabab la yu mën a tax yàlla nangu la sa ñaan insha allah la àlla gannaaw timis wala suba ñu àggale yi ci des wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi